sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi ñëw ci ñaareelu bind jëm ci wàllu alhamza hamza taarifoon nañ ko ci dars weesu waxoon nañu yiñ ciy def muy ñett yëf ñu jàppale bind booba ak bind bi dafa jàppaloo ñetti yëf yi dañ koy def ñetti yëf yi mooy tasxiil ak ak tax tax xëy duñ ko def dañ ko moom nag da koo da koo judduwaale tasxiil ak iddaal ak isqaat isqaat mooy xasf ñetti ñooñu lañ ci def dolli ko ci waaye bi mu judduwaale indaale ko mooy taxqiiq taxqiiq mooy nga jox ko ak xam rek foofu la ñu ci bind bi weesu bindu tey bi ñuy ñëw nañ ci Naafi' nga xam ni mooy sëriñu Warsh ak Qaaluun lan moo di ay àtteem ci Hamza bu ñu la waxee Naafi' jarul ngay laaj bu Warsh def ak lu Qaaluun def li Warsh def ak li Qaaluun def mooy li Naafi' def Naafi' wax nañ ko ba tàyyi Warsh plus qaalu égal naafi loolu rek la su la nee naafi am nàngam la kon riwaayatu warsh loolu lay def riwaayatu qaalu loolu lay def bu ci amee ku beru nag ci ñoom ñaar ci àtte da lay tuddal beru ka ni la diw moom nii lay def bu boobaa nga tànn booy jàng qaalu nga tànn la qaalu di def booy jàng warsh nga tànn génn goo naafiq parce que ñaar ñooñu moom la ñu tudde boo nekkee ci riwaayatu warsh yaa ci naafiq boo nekkee ci riwaayatu ndax warsh ci naafiq la jóge waaye lu ñu jëlee ci ñoom seen sëriñ ñoom ñaar bokk ko dëppoo ca loolu la ñuy tudde mu tax mu ni fa naafiun naafiun saxala dafa tasxiiri uxral hamzatay bi kilmatin fa hiya bi daaka bayna bayn fa naafiun sahala day tasxiil lan uxral hamzatayn benn ci ñaari hamza ya uxra nag mu ngi ci jublu saaniya ñaareelu bu hamzatayn ya fii kilmatin jàppal lool bu baax bu nekkee fii fii fii kalimatayni bokkut ak fii kilmatin uxa hamzatayni fii kalimatayni mooy comme jaa amruna jaa hamza nga ca mujj ga amruna hamza nga ci njëkk ga ñaari hamza ngi ci ñaari baat boobu waxut boobu mais fii kilmatin hamzatayni fii kilmatin dafa mel ni misaal yañ doon joxe a anzartahum ndax a rek doyul baat anzartahum doyul baat kon benn baat a unzila alayhi zikr wala a alidu wa ana ajuz wala baat yu mel hmm? kon naafi li àtte mooy dañuy tësil ñaari ñaareelu hamza ya kon jàppal règle bi mooy saa yu ñaari hamza dajee ci alxuraan te ñaari hamza yi bokk nekk ci benn baat ba ñaareel hamza ñaareel ba dañ koy tësil a ida mitna wa kunna turaban a ida noo koy jànge xam nga doo jàng a ida a i a i doo ko jàng ndax da ngay tax def ñaar yi te naa sax ngay jàng kon da wax a ida am na ñu dem nag ba àgg ci di wax ahi ahiza wala a inna la marduduna fi lxaafira ahinna hinna am na ñoo xam ne ñu dem ba ëng ci xaa am na aslu nag am na aslu parce que euh, daan yi wax na ko ci xuraa yu mag yi indi nañ ko euh, nangu yóbbu ko ba ci xaa am ñu wax ne dañ ko yóbbu ci xaa ci benn àtte rek mooy am ñu wax ni kenn du ko yóbbu ci xaa dañ ko yóbbu ci tasxiil rek mooy i xoolal i i goog nga xam ne day riir te jóge fu sori bokkut ak i i a i a i boo xoolee dafa mel ni ak toxu la jóge fu sori jëm fu jege leer loolu la wax na waaye bu jàppal bi kilmatin dama la koy jàppaloo parce que àtte bi dafa amaat yeneen bi kilmatay ni ci kanam fa fa bi daaka loolu bi daaka ci jëf jooju moom la ñuy tuddee bay na bay bay na na bi maanaam diggante tudd koo bañ koo tudd bay na bay na mooy li ñu wolof di wax ndeng ndeng ndeng lu ne ci ak diggante nekku ca tax xan ni ca dàng waaye dafa mel da dem ba jub ca àggoo buñ la nee naka mbir yi daf nga ni bay na bay na mooy doxul jàppute dox day firi bay waaye mooy mus mooy taslim rek dàkkantal la ci moom boobu kon wax na la naafi li muy def ci ñaari hamza yu daje ci biir benn baat mu ne laakin na fi l maftuxatayni ubtilat léegi nag hamza gi daje ak moroomam ci benn baat ci ñetti xaal lay nekk mën nañoo daje ci benn baat ñoom ñaar ñépp ñu fata hmm? comme dañ ma jox misaal a anta waaw a ant nga jàng ko ni an anta anta qulta linnaas ittaxiduni an parce que a a waaye an nuun gi dafa dafa sukkoon moo wax moo tax a anta yéeg ci an zarta am na foo xam ne lu def noonu andil ma beneen boo xam nii ah la ah, ah la te te xëcc amu ci noonu amu ci sukkoon amu ci a ah, amintum waaw ah, a amintum ndax miim gi gi ci ñaareelu hamza dafa kasra kon doo ko doo ko jàng da ngay jàng bële waaye ñaari hamza daje nañu ñi am bu ci nekk fatxa ñaari hamza danañu daje benn bi fatxa bu njëkk bi bu mujj bi damm wala mu kasra nañ ma jox misaal ci bu damm bi a unzila a unzila alayhi hmm? a anta faalta waaw boobu tam ci la bokk léegi na ah andil ma misaal boo xam ni ah dafa am kas rek topp ci ah ida mitna léegi boo xoolee kon danga nga ni ah ni ah ni ah ni i ni ah ni u yooyu yépp benn bu ci nekk àtte bi du soppi ko lay àtte bi mooy ñaari hamza daje na ci benn baat da ngay tësxiil bu ñaareel loolu mooy atte bi léegi nag mu am mu des nag bu fekkee ñaari hamza yooyu dañoo fatxa dafa am atte boppam moo tax mu ni laakin na fil maftuuxatayni su fekkee dafa ñëw ci ñaari yi ñu fatxa nag nga xam ne bu ci ne dafa am masque néeg ca kaw mu ne ubdi la dañ koy ib dañ koy ibdaali bu boobaa waaye nag an ahli misra jëlee ko ci ahlu misra ñen ñooy ahlu misra kan mooy ahlu misra xaalu nag warsh ku ci ahlu misra warsh mooy ahlu misra bu la nee misri bu la nee ahlu misra an abi nashid an an an uh, abi yaqub an warsh bu la nee ahlu misra warsh la kon ci riwaayatu warsh an naafi la def ci ñaari hamza yu fatxa te daje ci benn baat mooy dañ koy ibdaal wa mukki nag ñu jox ko àqam jox àq gi mi aju ci la ca topp ndax àqam du day wuute su fekkee la ca topp dafa am maas comme a amintum dangay wax amintum mais doo fa nekk naan amintum déedéet ndax miim nga dafa kasra waaye boo ne anzartahum bokkul bii dafa am madd xaqiqatan bu judd li juddal li jur madd gi mooy madd sukun ay sabab ay benn ci ay sababam la te sukun ñëw na xaj ci jiitu kon anzartahum da nga koy madd noonu waaye a a a a amintu hmm? da danga koy maasale waaye doo ko mat maanaam danga koy maasale maanaam danga koy wëlbati daf ko xarfu madd waxul nga madd ko ziyaadatan ala maddihil asli mais danga koy wëlbati daf ko xarfu madd léegi moo tax mu ni an ahli misra alifan ñu def ko alif wa mukkinan ñu jox loolu kon daal jàppal ni hamza gi bu dikkee fatxa hamza gu damm mën na caa topp hamza gu kasra mën na caa topp hamza gu fatxa mën na caa yépp nag àtte bi benn la ci naafi mooy dañ koy tasxiir waaye warsh am na lum jagool ci àtte bi lum jagee lum jagool ci lim bokk ak xaalul bu fekkee ñaari fatxa yu tegaloo nag da koy ibdaal loolu la moom kon lay lan la am xaalul mu ni wa madda xaaluunu lima tasaxala bilxulfi fi aushhidu li yafsila qaaluun am na moom it lu jagool ci bunt bii wa madd qaaluunu qaaluuna madd na xam nga kon lële war si madd qaaluun madd ko maanaam lële war si wëlbati ko ibdaal qaaluun du ko ibdaal kon da koy yóbbu ci cosaanam rek dañ ko daan jànge ci naafe ak noonu yëpp mooy bàyyi ko noonu tudd ko waaye tasxiil ko waaye qaaluun moom am na istisna istisna mooy loo xam ni moom da ko settee ci biir règle générale mooy baatu a ushhid ku ma mën a jàngal baat boobu hmm, jàng ko ca kaw ma dégg rek jàng ko jàngum tëj wi teg ba xam nga xam nga boo boo tax xiiqee ah bi dem ci uu bi dafay diis nga ni aw moom xaalum dafay wax aushhidu ah, a ah, a ah, ushhidu te du wax a ushhidu warsh wax aushhidu aushhidu aushhidu léegi uu euh, gi dafa mel ni madd la ci moom pour àgg ci man koo man mën a jafandu ci ñaareelu hamza gi dafay jiital madd pour man koo def mu wax aushhidu loolu la wax ni wa madda xaaluunu xaaluun madd na limaa lan li li nga xam ne tasa tasaxalaa dañ ko tasxiiloon bil xulfi waaye nag ci wuuteeg boppam moom ay qurra ay ruwaatam wuute ca kon am na ca ñoom ñuy def ni war si di def boo déggee ku jàng xaaluun ni a ushhidu comme ni ko war si di jànge d'accord boo gisee ku jàng xaaluun wax a ushhidu d'accord am na ci ñoom ñu koy def fii baatu a ushhidu li yafsila ngir mu bëgg a teqatle diggante a googu ak u googu ba côté xamle moo waral muy jàng noonu kon bu ñu dellu siwaatee ci bu ñu dellu siwaatee ci xaraf yi ñu jëloon maanaam ñetti bayit yi ñu jël takk ko fa naafiun jàppal ni naafia moom sa xala uxral hamzatay ñaari hamza yi daje ci alquran naafic dafay tashiil gu ñaareel ga uxra bi maanaa saani alhamzatayn bi kilmatin ci shart ñu daje ñoom ñaar ci benn baat ci shart ñu daje ci benn baat fa bi daaka loolu nag ci loolu loolu mu def bayna bayni moom la ñuy bayna bayni loolu mooy saa yu hamza dajee ak moroomam ci benn baat moo xam gu jëkk gi day fatxa moo gën a bari bu dee ñaari baat nag gu jëkk gi dana kasra dana damm dana am ay maska danañ ko indi ci tars bi di ñëw waaye bu dee ci benn baat bu jëkk gi ñaare day fatxa ga ca topp di am benn damm walla fatxa wala kasra bu ci ne joxe nañ ci misaal boo nee a ida mit na a ida googu dafa kasra kon dangay ngay jàng ay a ida mit mooy sax xala soo nee a unzila u googu gu ñaareel gi dafa dañ koy tas tasxiir ndax mooy ñaareelu hamza gi daje ak a u boo nee a alidu ah googu da nga koy tasxiil warsh da koy da koy ibdaal xaalun continuer di ko tasxiil ñaareel bi mooy su nekkee nag moom mooy loolu la indi léegi mooy fekkee dafa nekk diggante ñaari fatxa ñaari alif yoo xam ni dañoo am fatxa su boobaa waa ahlu misra muy warsh ak i taalibeem dañoo solo ni dañ koo war a ibdaal xaaluun nag màdd na lépp lu lu ñu war a tasxiil ci baat bu mel ni aushhidu loolu istisna la istisna nag ci ab règle kenn moo koy am génne ko ci biir la mu doon defandoo ak moroom istisna ko muy baatu kii boobu kon euh, bindu tey baa ngi noonu def naa ni leer na euh, incha allahu taala bind bii di ñëw incha allah ñu gën leer